nuyu nañ leen bu baax ziar leen jaajëfal leen baalu leen àq di leen baal àq di nuyu suñu mbokki inton di xam ñu ngi ñuy suivre saa su nekk mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy yëmbal benn barak seet suñu yaay suñu xarit Mama Selbé ku ne xam ne nag nañ waxtaan bu am solo mais xam nga rek il faut ñu ñu dóor dóoraat comme ni koy waxee <laughs> tey moom lañ dalal ci chaîne bu mag bi nga xam mooy Dakar ci àndal Aïssa nee naa la moom itam ah, mi ci beneen côté bi kon nee naa li may faral di wax ñun bi la ñu nekk dama koy jox mu nuyoo sama yaay sel après ñu woye li nga xamante ni mooy waxtaan bi ayca yaay booy nuyu na waaye di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla bu baax sant yàlla moo koy sant xam naa fu mu commencé waaye maa xam fu mu yem ndax xëy di dund yàlla may la nga wér jar naa sant yàlla mm-hmm. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba sant sama papa Baye Cheikh bi nga xam ne moo doon dawal otoom di mu yóbbu Touba te boobu mënumaa dugg ca jumaa ja waaye bu ma seenaan jumaa ja rek sama xol bi day sedd ah di mbég bu baax nag bég ci àdduna bi yëpp di bég ci ñoom confiance bi ñu def ci man bég naa particulièrement bérëb ma béral nuyoo sëñ Moustapha Sy moo tax jooyatuma Baye Cheikh ndoom mi ma jur sëñ Moustapha Sy moo tax jooyatuma papa ndax at mu ne sam papa daf ma doon yeewal xar Waly Seck moo tax jooyatuma taaw bu góor doom bu góor at mu ne daf may yeewal xar kon maanaam di sant yàlla rek julli ci Seydina Muhammad di ñaanal Sëñ Moustapha Sy mu gudd fan ànd ak wér ndax bu may wax ci moom duma doyal damay sànni ñaan ñaan yaa ngi ñëw na may sànni ñaan bu baax a baax si Malick gis naa ci moom njëriñ bu baax a baax ndax xam naa ne wàll wi la te leer na ma ne waliyu la te leer na ma ne si ñaanam mi ngi may dal bu baax di ko gën a tàllal loxo rek waaw di ko gën a tàllal loxo mm-hmm. ayca yaay démb ñu ñuy démb gis nga 31 décembre bi ku ne xam ne dugg nañ ci at bu bees muy tey le premier janvier tey at bu bees bi ñu dugg tey xam naa ne moom am na ci ñoo xam du ñàkk nag wax dëgg yàlla li ñuy faral di wax rek comme ñun ay xam ne ay waxkat lañ des fois ñu wax loo xamante ne sax jaaduwul mais dañuy jéggaluwaat ñëpp rek yaay waaw di wax ñëpp kullu doomu aadama buy teg tànkam ci suuf mhm. ci àdduna bi mhm. kuy teg tànkam ci àdduna bi maa ngi lay souhaiter bonne et heureuse année mhm. na 2024 dàq bépp at boo mës dund ñu ñëpp nañu baal àq ñu nit ñu ngi baale àq ndax wax dafa yombut dangay wax nit woola saaga la te nga mët ko yaay say doom di ko dégg dafa naqari ah maa ngi ñaanal daal ñëpp am jàmm ñëpp am salaam yàlla wàcc xéewal Sénégal gi ñu nekk wàcc ko ci àddina bi ndax ñu ñëpp ay doomu aadama lañ ci yàlla la ñuy jóge te ci yàlla la ñuy dellu sunu waajur yi nga xam ne jotu nañoo génn àddina ak sama papa ji mujjee dem muy bàyyi ndaw ah maanaam yal na ko yàlla xare àjjana comme fa fekk rek yàlla na leen yàlla xare àjjana foofa ñu dem na leen gënal fi ñu jóge naa ngi koy ñaan ci daraje Seydina Mouhamed 2024 2024 yéen na ko yàlla def mu nekk atum naataange dañ doon way naan l'an 2000 l'an 2000 atum naataange la waaye mm-hmm. mille 2024 yal na romb foofu mm-hmm. nekk naataange ak bég politiciens yi ñi nga xam ne ñoo leen di topp mm-hmm. nañu àndandoo bul dajeeg beneen cortège rek boo xam ne bokkul ak sa bos ngay génne jaasi di xeex jaru ko victoire bi Sénégal lay des président bi Sénégal lay des toujours maa ngi leen di ñaanal rek di ñaanal ñëpp jàmm bu ma sañoon ñëpp am jàmm bu ma sañoon damay dimbali nit ñi rek wallahi yàlla seede na ko bi jege si na de yéena ma ko wax léegi de xam man moom moom dañuy wax làmb waaye Coupe d'Afrique lay gën a sonn journaliste si meer match si suba bi mm. ma naan leen sarax bi nàngam la mm-hmm. te kenn du jox dërëm waaye balaa moo yegg si. Mhm. yal na ma yàlla may lu ma ci def rek te yàlla may ñu kub. ndax man dara ñoru ma mhm. xaaruma président de la république. Mhm. su ma xaaroon président de la république. deux mille vingt 2021 bi kon duma am dara. waaye maa jël li ma yàlla jox. nan di ko di ko liggéey nekk jigéen aw ma papa aw ma yaay mhm. yoruma borom kër mhm. yore sama njaboot mhm. waaye Sénégal yëpp sama njaboot lañu duma xaar kenn bii aussi yal nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm yàlla may ñu ndam yàlla may ñu ndam yàlla may ñu ndam tëje Sidina Mohamed man Sénégal rek a ma ñor leneen ñoruma duma génn di dem ci beneen réew di ko jàppale sama réew nag bu ayee li ma li sama doole tollool incha allahu rabbi dinaa ko def. Mhm. te ndam rek laa bëgg man. Mhm. kon mën nañu yi ngay génne ci coupe d'Afrique bi sa xaalis la. sama xaalis la kay. 2019 lañ ma joxoon benn 1 million. li mm. ki dese maa ko defoon. 2021 bi kenn joxuma dërëm. Mhm. du président du ministre du kenn la nekk yëpp maa ko def. te jour final bi ñetti mbana yàpp laa togg. oo waa koñ bi. waaw quart de finale bi. Mm. lañ ma indil coupe bi sama kaw lal. mu bindal xale yu góor yi ay Lacoste jox leen ak ay casquette demi-finale bi ma jëndaat Lacoste finale bi aussi la même chose lépp sama xaalis ba pare woo jigéenu koñ bi jouru match bi ñu ñëw di togg macha allah ba yàlla may ma ndam. drapeau takk ci koñ bi yëpp yëpp maa ko def lépp yàlla ma ko jox parce que Sénégal moom ma gënal. Sénégal moo ma gënal Amérique Sénégal moo ma gënal France parce que fii laa juddoo musuma dem Amérique musuma dem France fudul màkka dew ma fa kon man sama Sénégal laa am dama ne Sénégal sama sama Sénégal la mm-hmm. loo ci def rek. lu waay def defaloo ko kenn sa bopp rek nga ko defal. ayca mhm. merci beaucoup maman Selbé comme li mu wax rek moom ku euh, d'Afrique bi moom dafa bëgg Sénégal moom da ciy sonn parce que sarax yi dañ koy gis euh, drapeau yi nga xam da koy takk ci biir koñ bi dañ koy gis te loolu budget la xaalis bu baree bari la di wax ngeen gën ko teg loxo ndax euh, yaay la boo xam ne ku bëgg réewam la ay ayca yaay dañuy ñëw na ci combat tay bi booy Niang numéro 2 ak Modou Lo tey la. waaw tey la Euh, tey mooy bëre bi mais mm, sunu borom def na Selbé Ndom mi nga xam ne àdduna bi daf may xaar moo tax may waxaat nii mm-hmm. ndax man defaluma nit ñi lu tax ñu bëgg ma sama téléphone baa nga nee ma ngay toj bi ma jógee fii léegi rek téléphone bi am na cinquante quelque appel mm-hmm. diggante bi may wax ak ñoom élage duggaat ci néeg bi nga ne ma demal ndékki mm-hmm. cinquante quelque appel en absence yoo xam ne kenn ku ci nekk day bëgg ma seetal ko ah alhamdulilah bokkut ak yi nga xam ne boobu yeboogu ma maanaam day xaw a ko man nag defaluma nit ñi lu tax xëy na yàlla moom ma may loolu rek nga xam ne bu ma waxul kenn du am lu la neex ñu bëri dañ may woo sel mair sel ba yow laay topp yow laay déglu looloo tax rek waaye komba bi daal euh, buñ ci profito ku ci profito di nga daanu du combat bu yomb mystique na na torop mystique na torop mystique na torop jaral na mooduloo jaral na Boy waaw làmb bu doy waar la bu metti lay doon waxuma nag ci xeex ak gaañante mais dadul yomb ku ci fo sa morom dina la dina la dina la daan mhm. Mhm. Mhm. mais làmb ji mën nañ jàpp ne deret mën na bëri ci combat bi. man moom de ma part personnelle benn euh, yoon laa wax ne. Hmm. ñaari yoon laa wax ne tafaatin hmm. ak euh, Balla Gaye deret dina am mais du bëri. fii Tapha Tine moo daggoon. Hmm. Bombardier nag tafaatin laa waxoon deret dina tuuru. booba làmb des na daanak une semaine. ñu ne ma deret du tuuru ma ne deret dina tuuru ba deret tuuru taq ci ripp am. Tyson Balla Gaye dama ne kanamu Tyson gi day takk suuf prédire naa fi yu bëri daal yoo xam ne yàlla may na ma ndam mais bugguma sax ñoom ñaan ñu gaañante parce que kenn ku ci nekk yaa ngi ak jabar yaa ngi doom Modou moo ñàkk baay dese yaay boo ñaa mi ngi yaay mi ngi baay maanaam bu ma si mi ngi soxna mi ngi doom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga soxna Modou Lo mi ngi ñaari soxna bu ma sa sañoon ñu def fair play bëri rek bañ gaañante parce kon maanaam ñu xam ne sport la rek mhm. te supporters yi aussi supporters yi Pikine yi mhm. nañu xam ne làmb la rek mhm. làmb la rek supporters yi Parcelles yi aussi nañu xam ne làmb la rek kii yàlla ne mooy gañe mooy gañe selbe defu ci dara selbe ndoom li mu gis rek lay wax man nag du may def du may dindi man defuma bu ma doon def defal sama bopp doon présidente de la république bu Sénégal di defar réew mi dootu amati xëy jigéen day liggéey góor day liggéey la ñuy uti soble ci àll ba ñu di ko bay fii la ñuy uti ceeb ci àll ba ñu di ko bay fii tamaate loqa ji ñu ut suñuy bagage di ko defar nga xam ne duñ jëggaane dara man man mu fekkoonte damay dogal loolu lay dogal nga xam ne Sénégal dana mel ni Chine parce que sama bët bi ci Chine laa ko teg kon maanaam ñu gën a def ndànk rek. Mhm. waaw ñu gën a def ndànk rek. Mhm. Mhm. mu mel ne surprise mën na am comme instant bi actuellement ñu bëri Modou Lo lañ jox li nga xamante ne mooy favori su ma la dégg day mel ne surprise mën na waaw xam nga man euh, boobu ba tey euh, gisuma dara. dañ may wax booy ñaar rek. ñaar yoon wax nañ ma ko booy ñaar parce que ku dee sa loxo ndeyjoor ngay la lox waaye décortéku luñ ma neen booy ñaar lii wanuñu ma lii. songoo bu gaaw daal laay gis. après affaire bi day lëndëm ci man xam nga dem wax naa leen ko démb nag bi ma aññee ba pare eh, bi ma ndékkee ba pare rek mel ni dañ ma ne demal nga fatu ma ne xale yi dama naan tëj leen ma bu ma jógee rek dinaa leen boo ngeen ubbi ma yéene bi ma tëddee nekk laa gis Modou mu dugg ci biir barigo ci biir barigo laa gis Modou Lo dugg mu am benn xale bu góor bu njool bu taxaw teen nii waaw xale bu góor bu taxaw bu téye loolu daal gis naa ko. Mm-hmm. mënu ma cee wax leneen. Mm-hmm. vraiment te su ma ci waxee leneen yàlla dina ma rëbb. Mm-hmm. maanaam mën naa ci am problème te ba ma commencé liggéey ba tey di waate laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dafa yàgg. am naa ci fukki at ak juróom bay dugg ci juróom-benn. kon maanaam te sama âge sax màggetuma nag mais. sama age weesal naa sama bopp lenn li ndax koo xam ne àddina yu yëpp daf koy déglu maanaam na supporter yi dal ñaari mbër yi dal te xam ne lu yàlla wax ne ala xaalin day am day am bu yàlla ne Modou Lo day daan Boy Niang Boy Niang day daanu bu ne bu yàlla waxee ne Boy Niang mooy daan Modou Lo dina daanu ndax fi mu ne làmb ju ne am na fi làmb ji gënoon a metti muy ni ak Balla Gaye làmb gënu koo metti du ci kaw lal su ma bëggee gis làmb dëgg-dëgg ma tëdd ci kaw lal fu kawe duma fi tëdd mukk waaye te làmb ji moom metti na métti boo xam ne ku deful ndànk di nga daanu may wax naan que le meilleur gagne ndax mën naa ko décortiquer nag waaye duma ko décortiquer ndax su ma waxee làmb damay am pression làmb boo Bombardier ji ak euh, kii rëg-rëg dama ne ah Bombardier daa may chance rëg-rëg te naa rëg-rëg da koy daan mais waxuma jour boobu dama seetaan làmb ji direct awma pression awma dara waaw yàgg naa ci làmb xam naa ko lu ma gis xam naa lan la. ne du ma ne Modou Lo mooy daan du ma ne Boy mooy daan li ma gis daal wax naa leen ko Modou ci biir bërigo la dugg. génnul bërigo bi. ndox la wala bu amul ndox. bërigo ci biir ci biir bërigo bi génnul loolu daal yàlla won na ma ko te loolu démb la ma ko yàlla doog a woon démb loolu loo dugg na ci biir bërigo bi mm. ndax xaw ma yàlla rek moo xam. gis beneen xale bu góor bu taxaw ci miir tiin mm-hmm. loolu moom yàlla woon na ma ko moom mm-hmm. léegi nag bu làmb ji sottee mm-hmm. dinaa leen wax lan la ngeen ñëwaat Dakar People ñëw Sénégal Buzz ñëw Sans Limite ñëw léegi nag ma génne leen waaw parce que euh, yow fi ci koñ bi nga dëkk wax dëgg yàlla xaw ma la woon mais ku baax nga te li ngay def mën nga ko caméraman bi aussi du la sonnal naan la nangam ak nangam alhamdulilah Aïcha sama doom la bu làmb ji paasee tey rek ngeen ñëw ma wax leen li ma gis lan la parce que euh, fu leer laa ko teg daal waaw ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lañu Modou Lo sunu doom la li ma lekk ci xaalis ci Modou mhm. am di ko jox ma ko mhm. Aïcha di ko ay saak sax daf ma ko doon jox jabaru am di ko maanaam lekk naa ci Modou ci lu ne boo ñaa yàlla def na mosuma lekk ci moom dara te su ma bëggoon a lekk ci moom bu ma taxaw si buntu këram dina ma may waaye yàlla def na maa war a may booy ñaa maa war a may muuduloo Lo ndax samay doom lañu xaaruma ci kenn dara taalibi Sëñ Tuubaa laa ndax du ma taxaw benn kër mbër Balla gay laa doon taxaw këram te buy waaj a bëri damay dem ne ko nii nga koy daane yaayam toog ma toog mu toog ndax fonk gu ma fonkoon Balla Gaye ak bëgg ma bëggoon Balla Gaye ak féete bu ma ko féete ba ñëpp xam ko. dem naa aéroport di am ku may teeru ji sama benn goro. Mhm. ay xale góor ne xoolal daa bëgg Balla Gaye ba Balla Gaye yàqal ko liggéey. <laughs> man su ma doon moom maire bi duma def loolu. Hmm. damay wax rek mais daa féete ak Balla ba tax liggéeyam yàqu na. te fekk sama liggéey yàquwul. Mhm. yàlla mooy def lu ko neex ci jaam. Mhm. dépassé na nag foo xam ne damay sosol mbër mhm. wala may bañ mbër ñum ñaar ñëpp bañu ci kenn mhm. na àddina bi xam ne mhm. duma wax ne bii yoon làmb ji duma wax kii mooy daan li ma gis rek laa wax fa yem nekkul ne dama faral nag booy ñaa wala dama faral Modou Lo man li may samay jinne di wax rek wallaay wax li ma yàlla di won ndax xool naa ko ci pettaaw yi gis naa li ma gis ah mënoon naa woote bu ma lijjante woon numéro Boy Niang dama koy am bu ma lijjanti woon numéro Modou dama koy am am naa numéro Modou sax waaye man musuma woo Modou waaw maanaam alhamdulilah su ma neexoon kenn ku ci nekk dinaa la wax nangam ak nangam mais loolu nekkul sama devoir lii sama devoir toog yow ngay journaliste ñëw laaj ma mais loo gis ma ne la li nangam laa gis léegi des nag yàlla moo koy mottali yàlla bu ne Boy Niang day daan Modou Lo allah kulli xaalin day am. yàlla bu ne Modou Lo day daan boo Niang allah kulli xaalin mm-hmm. ñaari camp yi daal mm-hmm. ñu stand by nañu dal nañu xam ne victoire bi yëpp Sénégal la roi bi Sénégal lay des mm-hmm. wala roi bi bu jógee ci roi bi ci Sénégal lay ñëwaat encore waaw maanaam roi bi bu jógee ci Modou ñëw ci Boy Niang Sénégal la roi bu desee ci Modou ba tey Sénégal la rek nañu xam loolu affaire sport la rek mhm. làmb ju ne am na fi nag mhm. waaw mais nañ def ñun ñëpp fair play mhm. man loolu laa gën a bëgg nañ ñëpp def fair play waaw ah, merci du ñàkk bu combat bi jeexee lu mu guddi nañ ñëwaat waaw bu ngeen ñëwee nag ci kàttanu yàlla waaw ma décortiqué ne leen lii lii la lii lii la ah. ci kàttanu yàlla parce que bëgguma teg kenn pression dafa metti nga préparer sa làmb ah. tamit day métti nga préparer sa làmb def ci. parce que dama dama ko dama réfléchir léegi bu baax a baax man naa toj yax bi léegi léegi léegi. ñeneen ci kattanu yàlla lii mooy am. incha allah ndax man waxuma ngi diwa may won yàlla moo may won ñu may tëdd di ko gis xam naa lan la. mais tey mbër préparé ba pare tamit nga taxaw nit ñi topp la nit ñi seen bëgg-bëgg rek lañu xam dootuma topp bëgg-bëgg kenn. waaw dinaa daal raay raayal. ne ñoom ñaar que le meilleur gagne ci dara yàlla ngi may teral bu làmb amee maa ngi liggéey bu làmb amul maa ngi liggéey kenn mayu ma dërëm kenn mayu ma dërëm xanaa fan su ma looy bee paase may nañ ma ci lu ëpp ale ñaa may na ma doomu ma dikkee ñaa may na ma xaalis beneen fan su Modou boo xam ne Modou Lo sax xamu ko may na ma un million trois cent mil vraiment aale ñaa rek may na ma xaalis tubaarikàlla mais loolu taxul may wax li ma yàlla sédde ma doon seetkat yàlla may ma ku ma judduwaale ku naan papa lii mooy am ku dem ba ne sa papa sa mag moo leen njëkk a dee bu deewee yaay yaay ci topp sama papa ne ma li nga wax dëgg la maanaam moom mi ma jur xam na ma li tax mu am fukki at ak ñeent faalewul kenn ku dul man mii fukki doom ak ñeent faalewul kenn ku dul man mii la jël favoriser ma lu ma wax mu ne ma dëgg la ndax xam na ma bu baax moo tax Selbé choisir lu woon seet toggukat la mhm. dégg nga sànq ma naan la takku padros bi mhm. ceebu bu dibi laa togg ginaar euh. ak yàpp laa boole suur ba rek mhm. boo ko xoolee na ma ko defee rek sa xol bi day sedd togg laa mën <laughs> mais yàlla lu la sedd yow doo bañ mm, yàlla lu mu la sédd da ngay nangu ala kulli di joxe dig daje guddi rek incha allah ah, bu ko defee ñu décortiquer ko ok ah, merci beaucoup merci numéro yi après ay Aïcha def ko rek parce que bu làmb amee mhm. damay seet mhm. bu làmb amul damay seet numéro yi 77 la 744 39 18 77 737 67 46 foo mënti nekk ci àdduna bi dinaa la wax ni nga toll wax la ni nga mel. wax la loo xam ne danga naan dama laa xam bu yàgg loolu don da Dieu sama kër amul téere am takkuma ay béjjën takkuma laa man taalibe sëñ Tuubaa la jërëjëf naa la bàyyi nga dem ba ngoon incha allah ba guddi incha allah guddi guddi maa ngi lay xaar bu ko defee ma la yax bi incha allah <laughs> ayca merci beaucoup maman Selbé moom suñu yaay la suñu xarit la li wax tamit dañ ko koy nangul ndax euh, am na ci droit làmb yoo xamante ni mbëri dañoo nekk préparé bu am solo ndax kenn ku ci nekk say million million nga ci def tey bu toogee ne diw mooy daan mën a déstabiliser beneen camp bi li mu wax dëgg la am na ci droit ñu ngi koy remercier bu bu baax la ku la ku am jàmm la ndax ñëw nañ fi nag mu teral ñu tegal ñu ay ndékki yu neex a neex a neex mais yaay lu mu guddi guddi dinañ ñëw incha ci kàttanu yaay di wax yaan ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam kay meilleur gañ làmb la boo xam ni mën a daanee Modou Lo noonu mën a daanee Boy Niang waaye li suñu yaay wax rek ndam li génnu Sénégal ba tey bu ko Modou bàyyee bàyyee Pikine ba tey mi ngi Sénégal bu ko yóbbuwaatee parcelle ba tey mi ngi Sénégal ndam la boo xam ne macha allah di kontaan ci ñëpp saam di jaajëfal ñëpp jox nit ñi dig daje ba beneen yoon ci beneen émission spéciale làmb jërë ngeen jëf.